ci découverte bi ngeen bëgg a def ci sunu papa di suñu kilifa di sunu lépp di Ndomba fay gane àddina nag xam naa ne jàpp ko waaye ay booru 85 yooyu la fi bàyyee ko waaye Ndomba Faye góoru séréer la woon kilifa bu baax bu ràññeeku euh, ci mbokk bi ràññeeku ci dëkk bi doonoon na koo xam ne itam lu ko mës a fekk lu ne euh, muy tawat faj na ko muy tiis bu nit am boo ko àkkee faj na ko loolu nag euh, am na lu ci ëpp fi mu ko jële ndax ci jamono goneem mu jamono ndoo ak sëñ Touba mm, ba ko fekkee ngaañaañ ñëw fekk muy sàmm ñëw uh, nuyu ko waxtaan ak moom ba mu fay jógee sëñ bi def ko ne loo bëgg mu ne ko gudd fan ak faj aajo sëñ Tuubaa ne ko loolu dees na la ko defal tax na ba lépp lu ko mos a fekk faj na ko bi mu fiy jógee ba mu fi jógee amelul kenn bor xanaa kay ko amel bor waaye moom mos la amel nit bor eh, li ñu doon wax ay njégg ak yooyu ñàkk njël ba di ko wuuti xamu ko ndax lim doon bay da doon fekkante waaw loolu moom ci la nekkoon di sàmm di bay te aajo bu ko fekk mu faj ko kooku de moom moo doon dooba fay maanaam li ci ëpp mooy loolu ma la wax waaw di paj ajo xam nga nit ñi nag amee boo amee foo leen féete ñu am nuñ la jàppee comme moom am na fu mu féete woon doomu aadama yi moo taxoon moo tax ba lu bëri ah, buñ ko dee tudd rek di ko ci xalaataale mooy jikko ju rafet da jëf ju rafet da waaw du du woon buur comme ñooñu waaye dafa amul woon amoon na ak ñoom ay relation yoo xam ne bariwul lañ liñ doon def ñoom buur yi te ñëwuñu laaj ko ci xalaatam waaw ndax itam euh, penc moomu dafa di penc moo xam ne ku fi falu ñoo la fal waaw falu ñoo la waaw doon na ko def nag waaye defu ko woon pour kii daf ko daf ko yore woon nii rek xëy na boo ko ci laajee daal euh, sa yitte mu fajal la ko ci te ci mbéy ak càmm gi mu doon def euh, Njurbel mbokk boo ko dee seet géographiquement mooy moo nekk ci Médinatul Sud Est waaw euh, boo ñëwee rëddu njaareem moo féetee penku ci wàllu euh, bëj siin exactement ma li ci ëpp mooy manque de sécurité ndax boo dee xool dañoo zone périphérie lañ te euh, li ci ëpp mooy sécurité bi moom dama jàpp ne am nañ foofu njuumte ndax tool boo koy ñag doo jël ñag ya teg doo jël dëgg ya teg ko ca diggu tool ba te sécurité Diourbel ñoom ñu ngi ko def ci biir bàyyi zone périphérique bi te bu fekkee sécurité rek ngay def ci zone périphérique bi nga war a sécuriser parce que luy dugg ci lay jaar kon foofu lañ waroon di sécuriser waaye buñ ñu sécuriser biir dëkk ba bàyyi fii lu jóge fee ñëw yem fi ñun def li muy def def ay jéeya dëppaat boo woowee police balaa ñoo agsi kooku échappé bu fekkee ne wàllu feebar la aussi euh, xam nga zone bu mel nii am na loolu bu fi dalee nit guddi pour mu teel am lu ko yóbbu ci structure de santé yi mën na fi am leneen i problème voilà loolu daal moom vraiment nemmeeku nañ ko fii waaw. waa bi dafay faral di ñëw waaye enfin lu ñu gëna lool mooy di ñëw bi euh, lim def ci quartier yi muy yóbbu fa ndox yóbbu fa courant lañu bëgg mu def ko fii waaw te loolu ñun manqué nañ manqué nañ ko normalement manqué nañ loolu manqué nañ ndox manqué nañ courant. surtout ci heure yi nga xam ne ñu ngi jub jub ay élection euh, leader yi ñëpp ñu ngi fi ñëw euh, di def ay promesse euh, mais jàpp naa ne daal ñu nag ku ñu defal ñu wax li ñu defal docteur Soumaré moom day saa yuñ ko diisee soxla am na lu mu ca def waaw ndax biñ fi gënee ñàkk ndox bi fi ñax ndox gënee ñàkk bañ ko ko jooytoo moo fi def benn borne fontaine publique boo xam ne waa koñ bi ci la ñuy root jamono yooyu dañ doon roote ay sareet metti lool moo ko fi dindi yàggul dara euh, bi ko jigéen ñi jooytoo machine wol defe na ñeenti machine a ngi yi ñu muur nii ci la bokk docteur Souleymane Soumaré moo ko def waaw loolu day gis nañ ko fi xam naa comme école yi sore wuñ fi amuñu guñu problème boobu ah ay xam naa ndey boo demee ci ay quatre mille deux cent quelques habitants mu ngi fi mu fi yeewoo euh, di leen sant di leen gërëm euh, te di leen xamal ne euh, gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi euh, bëgg ngeen dëkk bi pour am sa soxla te jote woo fañ ko war a waxee ngeen agsi ba ci moom mu wax ay soxlaam loolu moom sant nañ leen si bu baax gërëm leen te itam di leen ñaanal seen tele bi yokk ba doon ay télé télé ba dëkk bu ne ngeen samp ko fa te itam di leen xamal ne rek boo li gën a leer ci Ndooba Faye daal il faut ngeen àgg ci kër googu ma leen wax nga xam ne moom taawam mu ngi foofu euh, mu ngi dund mooy suñ xalifa di alaaji Jokkel Faye boo fa demee euh, da nga xam ci Ndooba loo xam ne lu leer lay doon da nga xam it kan mooy Ndooba waaw te bu bu boo tàggoog moom waa njaareem dina xam kan mooy Ndooba waaw ok jërëjëf